waaw waaw jigéen ñi ñoo nekk nii ah yéen a am problème am na ñoo xam ne bu ñu ëmbee dañuy suñ seen ëmb ñu la amoon dem ah léegi alquran ñeent fukk ak juróom-ñaar la ci yàlla tudd jinne 47 fois la yàlla tudd jinne ci alquran 47 fois mooy ñeent fukki ak juróom-ñaar la yàlla tudd jinne ci alquran xaralaat jinne la cawlaat jinne la dana ñëw ci nit ngay ngay jigéen mu jël melokaanu koyrus mu ànd ak ñu teewa boo ëndee nga tuur wala ko la seet yoo ko seet seet ngay góor mu jël melokaanu koy gën a rus ci jigéen ñi ñoo ànd ak ñu teewa sa wërsëg bi fasu bi fasu doo am nga dem ajjana doom wala nga am xeet yu bëri liggéey jinne booba moo ko tuddee xaw rab wala coowee rab nit lu jinne ci biir ñeent fukki ak juróomi yoon ci arrahman ñu ko fa tudd juróomi yoon léegi fi ñu ko mën a tudd ci alquran mooy suratu naas mu ne saar boobu da koy jàng bés bu nekk quarante sept fois ba quarante sept jours dafa lay bàyyi dootu ñëwati ci yow wallaahi su ko mënta jàng ah Sénégal ñu ngi jël àll bi ak xale boobu daal ko dundal ñeent fukki at juróom-ñaar boo tee nga naan ko saw boo tee nga naan ko saw ba quarante sept jours bu dee xaw a la na la bàyyi bu dee xaw a la nga dina bàyyi bu dee nga avorté te mu yàq dana bàyyi ma baamuwaat ko alquran baati jinne 47 fois ci ñëw te yàlla ñu ko tudd ci suratu naasi mu ne jinnati wa naasi bés bu waxee nga def ko 47 fois di ko jàng ba 47 jiw daf lay doy boo ko mën ko jàng ñu bindal la ko bés bu ne nga naan ci sori ba 47 jiw daf lay doy di doy yàlla na ko yàlla barkeel